dafa am euh, benn góor gu gaañu am yaat juróom fukki at juróom-ñett fukki at ak juróom-ñett euh, mu génn àdduna moom nag euh, te bi ñu ko prélevé bi mu gaañu ñu prélevé ko ñu xool gis ne am na feebar bi ñuy wax Covid 19 waaye nag yëf yi commencé woon na fukki fan ci ginnaaw mu toggoon yaram bi jag jagadi mu ñëw comme sibiru yaram wiy tàng muy saxat ci la woon sax benn infirmier mu koy suivre mbokkam peut-être donc kooku bi mu demee ba xam ne yëf yàgg na ci moom te wurut mu woo district wu Thiès waa district wu Thiès ñu prélever ko yóbbu traitement prélèvement ñu yóbbu prélèvement Dakar alors samedi ci la affaire bi gën ko sonal maanaam daal yi yi gën ko sonal attaqué ko daal. ba nga xamee sax bi ñuy dem ba bu ko yóbbu attaque bu métti pratiquement buñ ko sax dugal ci oto bi mu génn àdduna bi prélèvement bi ñëwee tey positif mais teewoon na biñ ñu ko waxee aussi defaatoon nañ beneen prélèvement donc prélèvement post mortem yoo xam ne dañ ñëw confirmer ne effectivement moom yoru feebaru Covid 19 la yoroon léegi loolu bi mu amee ñun ànd nañu médecin chef district yeeg ñun ñëpp ñu dem foofu vraiment investiguer.

ñuy gën a xool yëpp koo xam ne am nga feebar buy niroog euh, euh, lu jëm ci sibiru nga ooñu c'est parce que nit ki dafa jóge mbuur par force ñu dañ koy prélever normalement sax kenn waratul jóge benn dëkk di dem mais nag am na ñoo xam ne dañuy braver interdiction couvre-feu def leen nag mais nañu bàyyi bu nit ki nit jóge na fii rek dem ni kaay nit jóge na ci dëkk bi ñëw na fa paay prélever ko danañ mu ñëw xool parce que fois aussi am na ñoo xam ne dañuy attaqué ñu ne leen ñu ay docteur lañu ñun faj moñu tax juk jóg képp koo xam ne dañoo war a jóg seete ko rek xam ne dañ ko war a jóg seet ñun demuñu fenn loolu rek la def di matin au soir taalib bi dafa amoon benn taalib boo xam ne daf effectivement amoon na feebar bi ñu ñu confiné taalib bi fa nekkoon yëpp ci benn hôtel waa district defaat euh, beneen euh, beneen euh, yeneen prélèvement ci ñuñ def yëpp nag kenn rek moo ci prélevé moo ci moo ci positif muy beneen koy ñaari taalib bi lañu donc boole koo kenn ki nekk cas communautaire bi nekk Pout ak ñett yi nekk Mbour donc ak à l'heure où je vous parle actuellement am nañ sept cas yu ñuy suivre pour le moment parce que ñun bu leen fàtte ne cas boo gis rek am na cas yu contact yu bari ñu ngi koy ñu ko ciy topp ñu leen di xool donc ci loolu lañu nekk ñu ngi ciy dox euh, ñaan yàlla aussi mu dimbali ñu ci ndax feebar bi aussi ñu mën a xeex moom. képp koo xam ne feebar bi dañu la Thiès ñu fa jëla dans peu de temps incha allah. fekk une semaine danañ am un grand centre de traitement. à la de la région de Thiès te loolu moom ministre bi Abdoulaye Diouf Sarr nee na danañ ko nañ ko dox te ñu ngi ci incha allah. parce que contact xam nga dafa dafa dafa yaatu surtout bu dekkee koo xamante ni jeune la woon xale bi 18 ans la amoon am fréquentation yu bari fu mu doon dem ñoo ñëpp dañuy nekk ay contact góor gi aussi comme nitu nit ñi la woon am na ñu ko doon seet si mbokkam yeeg doomam yi jarbaatam yi gorom yeeg yooyu yëpp ñooñu ñëpp ay contact lañu loolu moo tax mu bari ñoom ñëpp nag saytu nañ leen tey ànd ak région médical ak district sanitaire yëpp. contact bu nekk identifier nañ ko jël adresse am ñu ngi jël ay car di leen yóbbu ci hôtel yi ñu war a dal di leen saytu foofu dinañ leen defal seeni test tey wala suba saytu leen fukki fan ak ñeent bu ñuy génn également ñu defalaat leen beneen test pour mu wóor ñu ne amuñu doomu jàngoro waaye ku ñu testé nga positif dañ lay euh, yóbbu hôpital léegi daal di tàmbaliwaat aussi di càmbar say contact donc contact noonu lay demee il faut que nit ki positif ñu door a mën a wax contact waaye du caageen rek da nga nekkoon contact ak positif ka contact ak yow ñu considéré ko contact donc il faut que nit ñi xam loolu parce que nañ ko wax communautaire circulation du virus am na ci Thiès nit ñi nañu toog parce que circulation du virus am na ci gox yu bari nañu toog bañ a yóbbu fi doomu jàngoro bu fa mu yeggagul mais am na gox yoo xam ne moom doomu jàngoro baa nga fi di dox nañu fexe génn ñëpp xam ñëpp ber leen faj leen su ko defee yëf yi yem foofu